ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su la leesoo incha allah dañuy ñëw léegi ci dars bi nga xamante ni dinañ ko faral di amal benn yoon ci weer wu nekk dem la rek te dars bi. mu nekk ci benn téere bi ñuy topp ñu koy tuddee maza yaani intimaai fi lislaam askanoo bi may askanoo ci lislaam lan lay tekki programme bi ñu tuddee Fathaya Kane moom moo ko bind ñoo ngi nekkoon ci fukkeelu tomb ak juróom-benn ñu war a dem tey ci tomb yi ci topp insha allah kon duñ def lu dul ñu jox kàddu Oustaz Sali bi moom mi nga xamante ni moom moo ñuy defal dars yooyu ñu ñëw ak ñun ci tomb yi nga xamante ni moom moo xet ci temps bi insha allah. kon ustaz tafaddal mashkuran am na ñu wax nag ñu bàyyi wax ñoom
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi ñoo ngi ànd ak yéen ci téere bi di maza yaani intimaa'i lil islaam tey ñoo ngi jël fukkeelu tomb ak juróom ñaar sëriñ bi di jàngale ne an ashkura allaha taala ala naamaihi allati la tuxsa wa fadluhu wa rahmatu allati la tudrak mu ne li njëkk mooy war naa yëg ne man jullit bii war naa sant yàlla an ashkurullah mbokk yi ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw fu nu mën a nekk fu nu mën a toll war nañu yëg ne dañoo yoreel yàlla njukkal dañ ko war a sant an ashkurallaha taala ala ni'maahi ci xéewalam yi nga xam ne moom la ñu defal alquran dina wax ne wa ma bikum min ni'ma fa min allah lépp lu ngeen mën a am ci xéewal bàyyeewakul ci ma sàmba du ci seeni ndey du ci seeni baay du ci seeni maam du ci seeni xam-xam du ci seeni diplôme du ci seen doole waaye ci kan la bàyyee ko ci buur bu tudd allah yàlla beneen bi mooy wa ma bikum min ni'ma fa min allah waaye wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha suñ doon lim xéewal yi ñu yàlla defal ba ñu war ko sant duñ ko mën a peeg duñ ko mën a takk chaque jour damay wax ne dars yu mel nii suñ koy waxtaane wala ñu koy fàttali wala ñu koy jàngale bu ñu dem asamaan bu ñu dem ci suuf bu ñu wëri biir géej bu ñu dem fenn ci biir àll bi nañuy wax nañu joxoñ suñu bopp dañuy wax ne nit jullit dafa war a sant yàlla suñ doon laaj question ñu ne waa lan moo tax ñu war a sant yàlla yow mi toog ñu ne la santal yàlla nga ne lu tax ma koy sant léegi dañuy xool lim la defal ndax war nga ko sant wala waroo ko sant sa soxna sax bu la xëyee jox ndékki nga ndékki ba pare wala mu jox la añ wala mu jox la reer boo lekkee ba pare ba nga naan looy wax
jaraw la da nga ko ne jërëjëf wala boo nekkoon ci yoon sax benn war ah, di dox ku yor mbaam ñëw ne la yégal nga yéeg mu daw ak yow ba fi ngay wàcc boo wàccee loo koy wax jërëjëf maa tey waay xam loolu nga koy wax ah bu jërëjëf waay sa waay jërëjëf wala ok kenn ku la utal liggéey ngay chemi am ku la utal liggéey weer dee ndeysaan ñu fay la salaire bi looy wax waa ji
jërëjëf
sa papa ñooñu jërëjëf nga koy wax sa yaay jërëjëf
li la wër lépp képp ku jàpp ci sa dund pour mu sotti loo koy wax
jërëjëf
ah ku jàpp ci sa dund pour mu sotti loo koy wax jërëjëf ki la dimbali pour nga tukki loo koy wax jërëjëf bi nga demee amoo foo nekk ki la héberger sax ñetti fan loo koy wax jërëjëf ah ok kon léegi dars bi dina neexal leeral kan moo la bind yow kan moo ñu bind
yàlla yàlla kon war nañ ko wax jërëjëf ci bind gi wala kan moo ñu def ay nit
yàlla yàlla bu tax defuñu ay fas wala ay mbaam wala def ñu ay yoo wala def ñu ay kaña wala ay jinax bi yàlla di bind mbindeef yooyu ndax yow da nga koo bind lettre demandé ne ko moo man nag ma def nit ah nag ma def nit da nga def demande mais yàlla moo ko neex mu def la nga nekk nit doo ko sant ci loolu wala te nga yëg ne sunu borom subhanahu wa taala ci mbindeef yooyu mu bind lépp rab yi ba pare def la nit daf laa wax ne encore yow yaa ma ci gënal ah alxuraan mi ngi wax ne mbindeef yi ci kaw suuf yëpp ay daaba la mu ne illaa umamun amsaalukum xoolal ñun ak yoo ñoo yem ndekki ñun ak màtt ñoo yem illaa umamun amsaalukum ñun ak mbaam sëf yi ñoo yem ñun ak mbaam xuux yi ñoo yem ñoo bokk benn borom ñoo bokk ku ñu indi ci kaw suuf fi ngay dund la ñuy dund da nga am soxna ñu am soxna nga am ay doom ñu am ay doom ngeen bokk benn borom bu leen sàkk waaye xoolal loolu yëpp yàlla mu ne nag yow yaa ma ci gënal nag war nga ko sant loolu wala war ko sant wala loolu dafa sori maanaam explication yi bu ñu ci duggee duñ ci génn fii nga toog nii xoolal sa jëmm sun borom ne wa fi anfusikum afala tubsirun du ngeen xool seen bopp xanaa su ngeen xoolee seen bopp rek xam na man yàlla da ngeen maa war a sant laaj naa léegi dars biñ eggee ci xakimun xabiir yàlla dafa xereñ ma posé benn question mbokk yi man ni leen yàlla nee na damaa xereñ xakim mooy koo xam ne lu mu def noonu la ma ne bu ñu sori nañ jël sunu bopp fii nu toog ci bind bi nu yàlla bind kan mooy xoom kan mooy xool boppam bi fi mu nekk noppam bi fi ñu nekk bëtam yi fi ñu nekk bakkanam bi fi mu nekk gémmiñam gi fi mu nekk loxoom yi fi ñu nekk biiram bi cër yi toppee ko noonu ba mu jeex ci suuf bu nekk fi mu nekk nga ni bii warul woon nekk fii nañ ko changé nga wax suñ ko changé fan lañ koy def ma tàmbalee ndey jooraa ñu dem wala jar ko ma tàmbalee ndey joor oustaz sa bopp bi foo bëggoon mu nekk
fi mu nekk fi mu nekk amul réponse yow yaa ci tegu de sa nopp yi foo bëgg mu nekk amul réponse ba ba ñuy yegg siwaat ci man ku nekk buñ la laajee waa yow sa bët yi yow foo bëggoon mu nekk looy wax ah da nga naan fi mu nekk doon mu wax mukk non man de wax dëgg yàlla dañ ma waroon sama gémmiñ gi dañ ma ko waroon tourneel ci ginnaaw may dànk di tol ni di ña kon dañu war a sant yàlla xoolal ginaar boo koy jox mu lekk da nga koy def ci palaat après mu gës ko ak tànkam mu jaxasoog ci suuf si mu jaxase ko ba mu jaxasoo mu toog di ko for ah yow bu ñu lay taajal léegi léegi reer boo demee di ñibbi ñu lay taajal reer dañ lay lalal ba mu rafet ñu tegal la ba mu rafet ñu indi lekk bi teg indi ndoxum raxasu teg indi yenn saa yi kudd ak fourchette am na nu muy demee sax yenn saa yi ñu lay saxal ah pour doo taq yenn saa yi sax sikki mi taq ñu ne nii kon est-ce que war a sant yàlla ñeneen ñëpp bu ñuy lekk nu ñuy def gémmiñ la ñuy lekkee xar bi bu ñuy lekk lu muy lekkee mbaam yi bu ñuy lekk lu ñuy lekkee nag yi bu ñuy lekk lu ñuy lekkee fas yi bu ñuy lekk lu ñuy lekkee yow say loxo ngay raxasu ba set toog di lekk yenn saa yi sax ñu indi la yeneen jumtukaay ngay lekk yenn saa yi sax nga gis ku la lekkal te paabu bi jàngu nga gis ñu lay saxal est-ce que kon war nañ sant yàlla beneen an askurullaha ala ni'maihi ñu sant yàlla ci xéewal yi ñu defal fii ñu toog lii ñuy dégg nii may wax ngeen di dégg kan moo ci mën a fay yàlla ah boo déglu woon ba ngoon xëy suba dégg ba ngoon nga war a tëdd benn malaaka ñëw taxaw yor big ak fooy facture diw nga ne waa mu ne fu loo bëgg a def nga ne damaa bëgg a tëdd mu ne déet teel na tey li nga yendoo dégg yëpp fayagoo facture bi de nopp yi li ñu yendoo dégg xaar ma defal la ko nga fay fi kooku di bind ki yor bët yi ñëw ne la li nga yendoo xool da nga ko war a fay fi kooku di pare ki yor ngelaw li ñëw ne la li bakkan bi li mu yendoo nooy mu neex torop nga fiix kenn yëgul ne yaa ngi nooy doo fay keneen ki yor gémmi ngi ñëw ne waaw yow sawaay loolu li nga yendoo wax yëpp ngoon jot nga bëgg a tëdd noonu léegi doo fay facture bi foo jëm bu fekkoon ne ku xool fay ku dégg fay ku noyyi fay kon war noonu sant yàlla mbokk yi te jumtukaay yi ma wax bu ci am problème boo demee hôpital fay waaw consultation fay
bu sa bët yi amee problème léegi boo demee da ngay fay ah ba pare jëndaat ordonnance su bakkan bi amee problème su gémmiñ gi amee problème su nopp yi amee problème ah pourtant yàlla bi mu la ko mayee fayoo de te amul benn problème waaye bi la ko doomu aadama bëggee dimbali pour nga xool loo def dangaa fay kon nag wa ma bikum min ni'ma fa min allah léeg-léeg mbir yi daf ñuy jege ba du ñu mën a sant yàlla dafa am benn góor ci Saoudia milliardaire la multimilliardaire dafa am alal ba doyatu ko dara dund na juróom-ñett fukki at benn bis mu xëy rek munul munul munul dem wanag xam nga dafa bokk ci feebar yu mag yi wanag sooy dem aas yu mag loolu daf lay dal am na ñoo xam daf leen di dab na leen ci Yàlla musal moom loolu dab ko munul dem wanag mu bës benn bouton rek ñëpp ñëw mu ne leen yóbbu leen mu hôpital bi mu dem hôpital hélicoptère moo ko yóbbu bi ñu demee ñu soné doom yëpp ñëw yóbbu ko ci hôpital yi gën a sophistiqué ci àddina bi ay minute docteur yi gën a xarañ ci àdduna wër ko affaire bi daal di deñ dimbali ko mu deñ doom yi ñëw gis ko ne ko papa affaire bi dem na mu ne waaw ñëpp deñ na alhamdulillah léegi luy problème mu ne dara xanaa kay ñu ba noppaloo ñibbi xale yi kontaan xale yi ay borom alal lañ ku nekk jël sa chèque di bindal docteur yi di leen may xaalis ndax liñ dimbali seen pap góor gi xool leen rek daal di jooy jooy jooy jooy ñu ne ko lan la affaire bi dafa ñëwaat mu ne déedéet ñëwaat tudde ñu ne ko ak kon papa looy jooy mu ne ah xanaa li ngeen di def nii ñu ne lan li ñuy may docteur yi xaalis mu ne waaw ñu ne ah lu ci nekk mu ne ñaata at laa dund ñu ne ko juróom-ñett fukki at mu ne juróom-ñett fukki at yëpp saa yu ma xëyee dinaa dem wanag kenn musuma dimbali tey ñii dimbali ma benn fan rek ngeen kontaan ci ñoom boobu ba léegi yàlla ak may dimbali kontaanu leen. sant leen yàlla. ñun ñii suñu bët yi ñuy xoolee kan moo ci sant yàlla kan moo ci yëg ne yàllaa ma may bët war naa ko cee sant kan ci yéen moo yëg ne yàlla ma ma may dégg war naa ko sant kan ci ñun moo yëg ne nii ma mel sama jëmm ji nii ma d- kan moo ci sant yàlla kan moo sant yàlla bi nga yeewoo gis nga moo tax baatu ibaadaat yi boo yeewoo nga ne alhamdulillahi allazi afaana alhamdulillahi allazi ahyaana baada ma amaatana alhamdulillahi allazi radda alayhi ruuhi wa afaani fii ci sa ji wa azina lii gis nga ndeke ñun dañu war a sant yàlla guddi ak bëccëg ala naamaahi ci xéewal yam ñu may xéewal yooyu nga xam ne laa tuxsa kenn munu ko takk amul ku ko mun a compter jéem leen ko ndax kenn ci ñun yor bigal ko feuille yor kaye 500 pages mu ne damay wàññi xéewal yi ma yàlla may law kaana al baxru midadan li kalimaati rabbi mu ne la nafidal baxru qabla an tanfadd kalimaatu
walaw ji'na bi mislihi mooy dem
su fekkoon ne géej gi encre la garab yi nekk ay xalima ñuy wàññi xéewal yi ñu yàlla defal géej gi dina fer xalima yi dammatoo waaye xéewal yi ñu yàlla defal du jeex benn bët bi li muy xool kenn mënu cee fay yàlla kenn mënu ko cee sant benn nopp bi li muy dégg mënoo cee sant yàlla kon sant yàlla jaamu la goo xam ne moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi sant Moussa dafa ne yàlla dama laa bëgg a sant xamal ma loo xam ne su ma ko waxee sant la yàlla mu ne ko léegi nga ma sant nag sant nga ma jaratu ko kon nañu bàyyi xel jaamu yàlla boobu tudd ashukru te mooy sant gis nga baat boobu tey ci Sénégal kii mu ngi koy wax léegi bi ñuy ñëw baas bu nekk di nga ko romb ñu ne dañuy sant waaye doo fekk sant yàlla wala yéen grand yoo fii mës ngeen gis baas boo xam ne dañu ne dañuy sant yàlla man de dinaa gis ay baas waaye du sant yàlla de sant diw sant oustaz sant mbay amul sant yàlla ñooñu ñuy sant lan lañ def bañ leen di sant nañ natt ñun li yàlla def ak ñooñu liñ def ñu xool lan lañ war a sant yàlla moom moom cant yàlla lim ñu defal kenn mënuñu ko defal yàlla fi mu ñu féete kenn mënuñu faa féete te yàlla bu teggee loxoom sunu kaw ñu ànk ñu sànk kon nañu fexe sant nekk ci sunu xol sunu xel sunu lépp sant yàlla ndax yàlla xéewal yooyu mu ñu defal kenn mënu ko wàññi waaye wa fadluhu ngëneelam moom yàlla ci ñun ngëneel yu dul jeex ngëneelu yàlla ci sunu kaw yàlla def ñu ay nit ñu judd am ndey ak baay juddoowuñu ni xaj yi di juddoo juddoowuñu ni ginaar yi di juddoo juddoowuñu ni fas yeeg mbaam yi di juddoo loolu xéewal la nga judd am ndey ak baay judd ci keppaar ñaari nit yu la aar yiir la judd woo comme rabu àll yi muus bu bëggee jur nu muy def xaj bu bëggee jur nu muy def ah ah yow bi ngay judd dañ la assister ay nit ñoo ñëw di ci jàpp wala loolu xéewal la yàlla ay xéewalam fadluhu alayna kenn mënu ko wàññi kenn mënu ko pekk waaye yemu ci loolu wa rahmatu ak yërmandeem bu mu ñu sàng muur ñu ko moo tax mu ne laa tudrak kenn mënu ko daj waaye wa sukru min sifaati taaddub sant yàlla dafa bokk ci melokaanu teggin yi jullit dafa war a bokk ci ay melokaanam ay jaamu yàllaam sant yàlla su la ne na nga def nga ni maa ngi sant yàlla na nga fanaanoo maa ngi sant yàlla na nga yeewoo maa ngi sant yàlla waaye est-ce que loolu tey la ñuy utiliser ah fii tey lépp ñun boo ne naa def ñu ne maa ngi sant diw maa ngi sant diw loolu bokkaale la bu rëy a rëy rëy rëy boo xam ne mu ngi ci sunu sunu sunu xol yi ak sunu xel yi yàlla du sunu moroom yàlla mooy sunu boroom mooy kenn moo moonu moom lépp lu nu am bàyyeekul ci ma sàmba bàyyeekul ci ma demba du sunu kàttan du sunu mën-mën du sunuy pexe yàlla la kon dañ ko war a delloo njukkal moom yàlla ñu sant ko yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yaay Aïcha daf ko xool muy naafila guddi ba tànk yi néew yi mënatul taxaw day xiif ba jël ay xeer takk ko ci biir bi jël morso takk ko ngir mën a taxaw Aïcha ne ko yow yaamu yàlla bu metti bi nga nekkee te yàlla baal na la say bàkkaar inna fatahna laka fatahan mubina li yaxfiraka allahu ما تقدم ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا م- doo toog nga tëdd nelaw yow yàlla baal na la sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj xam nga yonent bi lan la tontu Aïcha afala akuna
عبد abdan shakura ndax man duma nekk jaam buy sant yàlla ah kay sant kon sant sunu borom subhanahu wa taala dafa bokk min sifaati taaddub melokaan yar la yar kii sant yàlla dafa war a yëg ne sant yàlla ay teggin la dafa war a am teggin maa min a man an ama maa man an ama dafa war a yaru ci ki nga xam ne moo ko defal ay xéewal ki nga xam ne moo sëmbërtal ci moom ay xéewal mbokk yi ñun ñoo wax léegi léegi ñun ak ci sunu biir kër yi ñun ak sunuy baay nga xam ne ñoo ñu yoral lépp ñooy sunuy baay ñoo ñu yoral lekk yoral ñu naan yoral ñu lépp dund gi yoral ñu koddaay lan moo ñu war ak sunuy kilifa ginnaaw ba ñu yeroo ci ñoom ba pare yeru dañ leen di sant eh papa jërëjëf waay gis naa ni nga ma taxawoo waaw bu fekkee sa papa nga wéy sa kilifa bu fekkee sa wéyjur bu jigéen nga mën a def loolu massamaak yàlla wi la wërsëgal ñoom ñaar ñooñu yàlla moo la ko wërsëgal kon ki la defal xéewal yooyu da nga war a am yar teggin envers côté am moom mi nga xam ne moo la may waaye wa ahsana wa tafaddala mu rafetal la rafetal ci yow mu defal la xéewal ay alquran baa ngi ñëw mu ne wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuna shay'an wa jaala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun allahu yàlla axrajakum moo leen génne min butuni ummahatikum ci seeni biiru ndey yi seeni biiru yaay yàlla leen fa génne du docteur du ma sàmba du ma demba kenn génnewul liir ci biiru yaayam ko dul yàlla su jigéenu wérul jigéen ju ëmb bu tollee mat mat yëkkati ko li muy njëkk a def day def day vailler vient ci biir kër gi ci biir néeg bi du tëdd minute bu nekk mu jóg ñëwaat toog déparaat jëkkër ji bu toogee ba càgg day énervé ne ko nañ nañ dem ma yóbbul hôpital gaara taxi ñu dem waa hôpital ne ko delloo ko kii ñoragul dafi yàgg rek delloo ko delluwaat ci taxi bi ñëw kon du ñoom toogaat toog fan la ko yóbboon 10 heures mu toog ba une heure mu ne nañ dem non instant yi moom mënatumaa toog yóbbu ma dellu dem ñu ne des na de mais bàyyi ko fi yow demal nga tëddi waa ji ne non non maa ngi ci biti toog ndeysaan kon du ñoom waa kër gi mënuñ ci dara jëkkër ji mënuñ ci dara hôpital baa ngi nii mënuñ ci dara dañu ne jotagul kon du ñoom ah takkarnaase yàlla mooy toog ba mu neex ko mu ne uxruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil ma'bud contrat baa ngoog yow mi war a judd génnal uxruj yow liir bi ayyuhal mawlud ki war a judd ci lan mu ne bi haqqil malikil ma'bud ci àq yàlla mi nga xam ne moom rek moom rek moom rek moom rek rek rek rek rek lañ war a jaamu kon mbokki jullit yi sunu borom moomu moonu génne ci sunuy biiru ndey wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum jamono jooju yàlla di ñu génne la taalamuna shay'an xamuleen dara ban làkk nga dégg ñaari tukulóor ñoo la jur ndax liir bi bu mu juddoo dégg na tukulóor dégg na séeréer dégg na njaago dégg na français dégg na anglais dégg xamul dara laa taalamuna shay'an yàlla daan lay may ay jumtukaay yoo xam ne ci ngay xamee wa jaala lakum samaa gis nga mu defal leen dégg wal absaara mu defal leen gis liir dégg lay njëkk a def ak gis nit dégg lay njëkk a def ak gis moo tax aaya ci alxuraan yëpp yàlla sama la njëkke ak basar wa jaala lakum sama wal absar nit dégg lay njëkk a def fi muy judd rek day commencé dégg waaye am maa gis gi day am ay fan bu njëkk ba sax day am ay weer mais léegi am nay tuufkaay yoo xam ne ay fan liir bi commencé gis waaw loolu bi juddu jotee balaa liir bi génn fañ ko yóbbu hôpital ba juddu jotee yàlla jaarloo na liir bi foo xam ne bi mu juddoo ba pare buñ ko fa bëggoon delloowaat day dee wala yaayam dee wala place boobu liir bi jaar juddu nga xam ne ñun ñëpp fa lañ jaar juddu est-ce que yéen kenn ku nekk ci buñ lay laaj ndax nit xëj na foofu looy tontu yenn saa yi ñu ne la xale bi 4 kilos la 5 kilos nga ñëw fab ko doo ko attan ñu ne la ci kii de ci nit la génnee te foofu la jaar kon kan la moo tax ci aaya alxuraan yàlla naan summa sabila yes yassarahu man yàlla maa yombal yoon boobu ba liir bi mën a jaar foofu su ngeen weddee loolu delloo leen ko ci da ngay togg ataaya nga xiim ba pare ñu ne la warga bi ñorul wala da ngay këpp warga bi dem jëndiwaat nooy def da nga ko ci delloo do yokk ndox bi da ngay togg ceeb ñu ne la ceeb bi ñorul da nga koy këpp jëndiwaat lu tax nooy def da ngay yokk ndox dagaat ci cin bi doom juddu ñu ne matut lu tax delloo wuñ ko foofu mu nekkoon dañ koy yóbbu crèche kenn du ko dugalaat foofu ndax mënul fa dugaat benn yoon boobu dong la fay nit di jaar waaw tax waaje ba muy ngand ngand lu ataarifuna man ana ataarifuna man ana benn waay ne ko naam naarifu man ant mu ne man ana mu ne ko anta allazi mararta bi marril bawli marratayni kayfa tatakabbar anta allazi mararta bi marril bawli marratayni nit warul rëy waa ji naan may kan ak ay garaam bu ba mag mbaxneem di ngand ngandulu waa ji ne ko xam nañ yaay kan may kan mu ne ko yaay ki jaar fu ñuy tuure ndox ñaari yoon bi ngay jóge sa papa di ñëw ci sa yaay fu ñuy tuuru ndax nga jaar bi ngay jóge ci sa yaay di ñëw ci àdduna fu ñuy tuure ndox nga jaar loxo yi la njëkk a jot dañoo raxasu bi ngay génn àdduna loxo yi la mujjee bi ñu paree dañoo raxas gis ngeen gars yi bu ñu jógee armeel yi lu ñuy fekk ci buntu kër néew bi ñu teg
paanu ndox paanu ndox loolu sax bidaa la moom jógee ay armeel ñoo ci paan di raxas loolu bidaa la dégg ngeen de jógee ay armeel ñëw ci paanu ndox ñu teg ko ci buntu kër gi ñëpp di raxas loolu bidaa la bokkul ci diine néew ñi ko sang bu ñu paree dañuy jàpp pare nañ ñi ko sang ñi ko laal bu ñu paree dañoo war a jàpp mais waruñu waruñu raxas dañu war a jàpp loolu la yonent bi digle te ñi ko sang lañ wax kon sunu boroom moo ñu génn ci sunu biiru way jur yu jigéen yi sunu biiru ndey yi mu defal ñu dégg defal ñu gis waaye wal afida mu may ñu ay xol membre boobu tudd xol mooy njëkk a formé ci doomu aadama ginnaaw ba mu nekkee likitu mani yi mu nekk ndox ndox mu doyadi ndox moomu nga xam ne feesul xottu gerte ku mu takk sa yére boo xëyee suba fóot ko ku mu takk sa yaram boo xëyee suba sangu ndox moom la nu yàlla bindee mu def ndox moomu fa jaalnaahu fi qararin makin mu def ko ci place boo xam ne dafa am sécurité ila qadrin maalum denc ko fa ba mu neex ko moom yàlla qadr maalum mu ne fa qaddarna fa ni'amal ma dogal ay waay man yàlla li ma dogal moo rafet mooy ma def ko mu nekk nit nga juddu ku la fab ndeysaan bëgg ay waay liir bi du ngeen ma ko may ay kii rafet na di ngay gën a màgg loo gën a dem di gën a rafet loo gën a dem nga nekk fi ak say moroom ci àddina bi waaye ni nga mel kenn melu ko kon loolu ay xéewal la yoo xam ne waruñu romb rek dañu war a sant yàlla ci bind bi mu ñu def xam nga dañu ne dañu war a sant yàlla yàlla di ñu wax lan lan ngeen ma war a sante mu ne ginnaaw ba ma leen defalee loolu may leen bët génne leen ci seen biiru yaay yi foofu ma leen génne fu xat fu lëndëm foofu fii zulumati salaasa ci ñetti lëndëm lëndëmu butit lëndëmu mbàq lëndëmu biir yàlla génne la ci biir butit yooyu ah boo boo boo nekkoon ci avion sax nga wadd am ku la capté loo koy wax di nga ko wax jërëjëf walla di nga romb jërëjëf boo nekkoon ci teen nag nga nekk ci biir teen teen bi lëndëm benn waay dugg génne la loo koy wax jërëjëf xoolal yàlla nee na maa la génne ci ñetti lëndëm kon war nag sant yàlla lan moo tax léegi ñun ñu bugg a wax nit ñi jërëjëf te duñu wax yàlla jërëjëf jërëjëf yow sama borom nga sujjóot ne ko jërëjëf yow sama borom nga am xéewal nga ne ko jërëjëf yow sama borom lii yow kesal du kenn ku dul yow loolu la mais tey problème bi mooy su ma amee dara dama naan waay man may ngand waaye lii dama koy am ñenn ñi la sa liggéeyu ndey la ñenn ñi ne xoolal li ma benn waaye doon wax léegi léegi bi ñu paree tafsir léegi léegi léegi léegi cinq heures la ma woo ne ma dama am problème ma ne ko ñëwal daar ja jàkka ja mu ñëw ne ma xam nga lan laa def dama dem ci xàmb yi jënd sangara dem ci tuur yi sotti ci sangara mu ne léegi nag dama tiit bu ma ne allahu akbar sax loolu mooy ñëw sama xel ndax yàlla dina ma baal ah lan moo la ko waraloon damaa bëggoon liggéey kese ñu ne ma boo ko defee am liggéey damaa bëgg liggéey moo ko defee am liggéey damaa bëgg liggéey du ma dem jàpp ma su- ma tàllal yàlla loxo du ma dem jàpp julli ñaar raaka sujjóot su ma paree ma taalal yàlla sama loxo ma ne ko yàlla liggéey laa bëgg ma seet ndax dina ma may wala du ma may balaa ngay dem di bokkaale mais sunu sunu xel yi moo lëndëm li ma doon wax léegi xel yee lëndëm te nit bu xelam lëndëmee li muy njëkk a ñàkk mooy diine sunu borom jalla jalaalu mu ne def naa lii lépp waaye lenn dong laa soxla ci yéen mooy laallakum tashkurun ndax ngeen sant ma kon sant jaamu yàlla la ni ngay jullee di woor am alal saraxe wala nga génne azaka wala nga am alal aji màkk noonu mu nekkee farata noonu la sant yàlla nekkee fard farata la mu ne moom yàlla subhanahu wa taala wa ayatun lahumul ardul maytata ahyaynaha wa akhrajna minha habban fa minhu yaakuluun wa jaalna fiha jannatin min naxiil wa a'naab wa fajjarna fiha min al uyuun li yaakulu min samarih wa ma amilatu aydihim afala yashkuruun allahu akbar sunu borom ne bu ngeen bëggee xam ne da ngeen maa war a sant wala waru leen maa sant mu ne kéemtaan gi aaya yi suuf suuf suuf su dee suuf si day dee léegi ñu fi ñu toll nii suuf si dafa dee dugg leen ci dëkk bi yéen xool lépp wow kon nag yeeg xar yi sax amatuñ luñ lekk lépp a wow al ardul mayta yàlla nee na ahyaynaaha ma dekkil ko ci ay fan yu néew nga romb lépp verte lëndëm ba bu ñu la nee jaaral fi doo fi ñemee jaar te fii nga tëddoon démb di bërëngu yàlla nee na ma dekkil suuf si gis ngeen bu nawet bi ñëwee da ngay romb ci àll bi lépp verte ah dafa am ñu fa dem jëmbataat ay garab taxaw di ko roose ba mu vertaat noonu ah kan la da mu ne ahyaynaaha maa ko dekkil yemu ci mu ne wa axrajna minha habban lu vert loolu ngeen di gis tool yooyu ngeen di gis ma génn ci ay pepp dugub mboq gerte ay grain yu dul jeex mu ne ci grain yooyu fa minhu yaakuluun ci ngeen di lekk yéen a ko defar kan ci ñun fi moo defar gerte yëkkati sa loxo amul fii ku fi defar dugub fee ci ginnaaw ñan ñoo defar mboq yéen ah ba pare benn ngay jox yàlla benn ngay dem dugal yàlla daal lay fay ñaata fi kulli sumb la miatu habba benn ngay def yàlla may la téeméer kon war noon sant yàlla mu ne ci ngeen di lekk wa jaalna fiha jannat ma def ci ay tool ay jardin min naxiil tàndarma wa anaab raisin mu ne wa fajjarna fiha min al uyun nga gis sew nda yi explosé ci suuf si di walangaanu nit ñi naan gars yi ndox mi ñuy naan fu mu bàyyee ko ku ko defar ci ñun ku defar ndox mi yéen a ko defar yéen yéen a defar ndox mi kan moo fi indi ndox mi kon yàlla gis nga ba mu bëggee ñu sant ko wax nañu lu tax ñu koy sant parce que li mu def la lay wax pour nga xam ne moom dañ ko war a sant mu ngoog minal uyun ay sewnde li yaakulu min samari ngeen li ngeen ngeen lekk ci fruit yi ci meññeef yi mu ne wa ma amilatu aydihim seen loxo defaru ko de yéen du yéen a ko defar mataan lakum wali anamikum ci beneen aaya da ngeen ci bànneexu yéen ak jur yi ngeen yar da ngay ji gerte nga lekk doom yi xar mi lekk nga defar dugub nga lekk dugub bi xar mi lekk loo defar rek xar bi lekk ci nga lekk ci wala yeneen jur yi lekk ci nga lekk ci yéen ak jur yi yéen a ko bokk mataan lakum wali anamikum yéen ak jur yi yéen a ko bokk mu ne li ci ëpp dara ngeen ci defarut da ngeen fekk mu ñor rek ngeen dindi lekk garabu mango bi ngay defar sa kër samp ko fa di roose ba doom bi xëy ñor yow la yaa ko defar defaroo ci dara naka noonu leneen ak leneen ak leneen li ñuy lekk yëpp dara borom bi nee na lañ ci defarut yëpp yàllaa ko defar kon nag maadaama lii la demee afala yashkurun nit ñi lu leen tere sant ñàkk jom weesut yàlla may la ceeb mu jóge Chine ñu def ko ci ay bato mu romb adduna bi yëpp romb dëkk bi yëpp ñëw ba sa biir dëkk ñu wàcce ko port camion yëpp xëy dem di chargé camion bi ko chargé daal di koy indi ci benn magasin bu nekk sa koñ magasin ba borom bitig bi dëkk sa koñ dem jënd ko indi ko sa buntu kër waa koñ bi li ñuy bari bari yëpp yàlla nee na ceeb bi dank bi kii moo koy lekk saako boobu yàlla wax yaa koy lekk yow kenn yaa koy jënd indi ko sa kër xoola sa fi mu jóge biñ ko defee ci bato bi fan la romb biñ ko wàccee port ñaata camion ñoo ñëw sol ceeb bi waaye yow bi nga ci war a lekk yow li nga ci war a lekk yow kenn yaa koy lekk keneen du ko lekk orange bi day ñore Maroc romb Maroc marocain yi soxla nañ ko wala soxlawuñ ko soxlawul nañ ko wala soxlawuñ ko ñu romb leen xam nga lu tax yi leen di romb du question ñooñu soxla nañ ko wala soxla ñooñu dañ ko warul lekk yow mi toog fii Sénégal dëkk Grand Yoff yow mi yow yaay dem fii léegi ci tër ci ci ci ci ci ci kii bi marché bi fekk maire bi di ko yaa nga ne ko maire Samb bi ñaata fekk yow yaa ko war a lekk du question ñee ñee duñ ko lekk yow li nga war a lekk yaa koy lekk moo tax yonent ne law annakum tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasan wa taruxu bitaana su ngeen gëmoon yàlla dëgg-dëgg nu ngeen ko war a gëmee kon yàlla dana leen wërsëgal ni muy wërsëgalee picc yi waaye nit ñi ñoo gëmul yàlla kon ndoomu ndey yi sunu borom moomu nee na afala yashkuruun waa lu tax du ngeen ma sant lii ma def lépp la moo tax doomu aadama yi ñàkk jom lekk ba pare ne jërëjëf diw moo niinal ceeb bi loolu ñàkk jom la lekk ba pare bañ a sant yàlla ñàkk a jom la sunu borom nee na walaqad waada allahu taala shakirin bi mazid min al an'am ñi may sant man yàlla maa leen assurel maa leen dig ne dama leen di yokkal rek wala in shakartum saa yi ngeen ma sante dinaa leen moo tax foo gis kuy sant yàlla day yokk mbiram day baax day yokk góor la jigéen la mag la ndaw la foo gis kuy sant yàlla baatu alhamdulillah nekk ci gémmiñam lépp feebar wér am ñàkk xiif mar kooku di kanam rek la jëm ndax day xam ne yàlla la xoola yonent su xéewal yi wala ngaanee day day wax alhamdulillahi allazi bi ni'matihi te timu saaliha ay waaye nañ sant yàlla mi nga xam ne ci ay xéewalam la lépp di mate su mbir yi méttee mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal du saalit su neexee mu sant su méttee mu sant noonu la jullit di mel waaye ça va sénégalaisement non booy town bi temps yi dafa dëgër quoi temps yi dara doxul temps yi temps yi te waa jooju di wax loolu ndékki na añ na reer na hmm? waaw ndékki nga bi ngay ndékki da ngaa dem ci mayga bi jënd dibi jënd benn kaas ne ko tuy ba pare ñu ne la ça va nga ne ça va pas ah ndékki loolu la bi añ jotee tamit noonu nga def añ ba suuf reer jot nga reer même boo lekkee fonde sax fonde bi am na suukar am na meew am na soow kon kay waxal alhamdulilah am na ñu bëgg fonde bi te amuñu ko ndeysaan dañu benn borom xam-xam daf ñu mës a invité toogu reer añ bu neex ñuy toog ñu commencé lekk benn waay jékki-jékki ne "Euh, añ bi neex na rek paa bi daal di def nii quoi gauche à droite rek yuux daal di daanu añ bi ñun ñëpp ñu arrêté kenn mënutul lekk ñu ne mbalaan la góor gi mbaa jàmm la mu ne kii li mu wax moo ma moo ma tiital ñu ne lan la mu ne ñi ko amul nag maanaam ñi amul añ bi instant bi ngay lekk am na ñu amul li ngay def instant bi ngay nelaw am na ku mënul nelaw instant bi ngay dox am na ku mënul dox dañu musa dem conférence Gorée ñu wàcc salub bi mu commencé taw ñun ñëpp ñu ngi sol suñu yére di dox mu ngi taw ñu ngi defar ram bi ma jékki-jékki gis ci biir mbooloo mi ndeysaan benn handicapé muy ram ci taw bi naan nii te conférence bi ko indi de ak yéréen yi ak ndox mi ni mu mel muy raaw ci kanam ndox mi ndeysaan conférence boo ko indi de mu ngi dox di ànd ak ñun sama rongo ñi wad xoolal ñun ñëpp ñu ngi dox ak suñuy tànk moom moo ngi raam ak yéréen yi ci ndox mi allah mbokk yi war nañ sant yàlla sant yàlla dafa war a nekk ci suñu xel yi crise yi ci yàlla li mu wax mooy dëgg wa in taw du ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon xool li ma leen defal kenn seen mënu ko takk kenn seen mënu ko wàññi kon dañu war a sant yàlla bu baax ndax yàlla moo nu dig ne su ngeen ma sante ma dolli leen mu ne kama tawaada ahlul juhud wan nukraan noonu aussi la tëkkoo ñi nga xam ne duñ ko sant soo nekkee ci kër même jabar yi sax jabar yi amal ay jabar jabar joo xam day xëy na leen di jaay jërëjëf waay lekk nañ suur nañ amuñu benn problème ak jabar joo xam ne ah ah kan ngay gën a kii wax leen même doom yi waaw doom yi nga xam ne reconnaître nañ ah papa jërëjëf waay ak doom ñoo xam ne xoolal waaye dara waaye pa da nga ko war a defan xam nga ne du benn wax leen dëgg moo tax yàlla dig ngeen dama leen di yokkal waaye mu dig ñi nga xam ne dañ ma bañ a sant dama leen di duma bu leen yaakaar ne ku santul yàlla rek da ngay jàll noonu mu daal di yomb non bés dana ñëw yàlla jàpp la duma la ndax yàlla daf la defal ba pare ne la sant ma nga bañ nga sakk jëf xam ngeen al kufru mooy lan ci arab ah maanaam al kaafir jàng ngeen ko alquran al kufru mooy sakk jëf yéeféer yàlla daf ko may ba pare mu gas ba mu xóot mooy loolu ñuy naan yenn saa yi jigéen daf koy def jigéen day sëy deux ans wala mu sëy dix ans wala mu sëy cinquante ans cinquante ans jigéen daf koy sëy wala soixante-dix ans nga sëy kook jigéen di lekk añ reer ndékki nangam nangam nangam nangam nangam nga xëy rek yéen ñaar ngeen am problème rek yow ba ma duggee ci yow laa alku musuma lekk musuma naan yaa bon maanaam mooy li nga defoon yëpp ci njekk da koy gas bu mu xóot daal di suul kenn du ko gisati saa yooyu ñëw ne ko waa lu la booleeg di mun a wuy kii gis nga lu bon rek léegi lay wax loolu moo tax yàlla tuddee yéeféer alkaafir mooy kuy sakk jëf gis ngeen yàlla tuddee na baykat yi yéef yéeféer lan la ci yàlla jublu mooy baykat day jël gerte wala mu jël mboq wala mu jël dugubam mu dem ba àll ba gas ba mu xóot suul loolu mooy al kufr mooy sakk jëf yàlla defal la nga xam ne yàlla moo la defal yàlla moo lay may nga gëmm na yàlla defaluma dara mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala dig na duma ñi ko lànka sant ak ñi ko weddi yàlla neen ñooñu dañuy perte fu ñu toll wa istaadana rabbuk la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi yàlla moo dig moom seen borom mu ne su ngeen ma santee ma dolli leen su ngeen ma weddee ma duma leen te man sama duma dafa metti te man sama duma dafa metti yàlla dumaam xejul ci nit kon mbokk jullit yi boobu tomb moom lay foofu lañ boobu la ñuy jël tey muy fukkeel ak juróom ñaar mu nekk ci sukru sant yàlla tabaraka wa taala baatu sukru mooy lan lan mooy sukru ma maana as sukru ñu ne as sukru tarkul maasi sant yàlla mooy nga bàyyi mooy ko loolu mooy sant yàlla sëriñ bi dafa jékki-jékki mu ne mbaa kuy tuur dugub nekku fi kuy tuur dugub waaw kuy yàq dugub ñu ne ko yàq dugub loolu nu ko nit di defee mu ne waa am na ñu yàq dugub ñu ne ko sëriñ bi dugub kenn du ko yàq ndax nit yàlla du ko jox ba pare mu dem di ko këpp mu ne waxuma loolu de xam ngeen nit lan la yàqee dugub ñu ne ah mu ne yàlla may ko mu lekk ba suur mu dem moye ko yàlla loolu mooy yàq nga lekk ba suur au lieu nga fanaane naafile au lieu nga fanaane tudd yàlla au lieu nga fanaane jàngal xuraan nga dem fecce ji ko wala nga dem doxi ji ko wala nga dem seeti ci xale bu jigéen wala xale bu góor wala nga dem njaaloo ji ko ba bët set nga ñëw toog loolu musiba la yal nañ ci yàlla musal kon loolu mooy dars bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu